mu yaatal ko alors euh, monsieur Ndao waaw émission bi dañ ko bëgg a tàmbali ak actualité te actualité bi mënuñoo kee mënuñu ko tàmbali te waxuñu li xew tey muy benn journée bu mouvementée bu ñu dund à mm-hmm. travers des manifestations un peu partout malgré sax yeneen ñi ci ay rassemblement ki manifestation dañ ko autorisé yenn yi naam ñu bañ ko mm-hmm. ñu gis ne euh, li xewoon mars naam xewagu fi waat mm-hmm. waaye ñu ngi tàmbali nag di gis euh, petit à petit ay xeetuk euh, yenn ci ay manifestations yi nga xam ne Euh, mun na euh, jur lu ëpp li nga xam ne euh, moom la ñëpp di di ragal alors ban analyse ak jàngat pour une première lecture ngay def pour ce qui se passe sur ce qui se passe autant pour am waaw jërëjëf man jàngat bi ma ci am mooy que pouvoir Macky Sall mm-hmm. moo permettre une libre expression des citoyens. Mm-hmm. parce que dañu nekk ci démocratie démocratie euh, maanaam ci li muy gën a sukkandiku mooy liberté d'expression mm-hmm. et liberté de de de, manifestation mm-hmm. te loolu lañ ko bind ci constitution bi mu leer mu leer nañ mm-hmm. waaye li ñu seetlu mooy régime Macky Sall bi ñu fi bi ñu fi nekk ba léegi li ñuy interdire ci manifestation dafa bëri dama jël rek benn exemple démb manifestation bi Yewwi def dañ ne bàyyi ñu def cette manifestation amul benn incident dañoo def wax li ñëw wax ku nekk jël sa jël sa dugg soto daal ñibbi suñ ko defoon tey jii ma ne dina am incident yi mu am donc nañ bàyyi citoyens yi ñu manifester seen naqar ñu manifester seeni xalaat parce que ci ci réew mi lañ bokk fii réew mi kenn ëppalewu fi kenn yàlla dafa def ñoom ñoo weru nguur gi waaye citoyen tamit dañu am am nañ seen àq ak seen yelleef mhm. dañu war a bàyyi ñu def seen i manifestation normal mhm. tant que loolu defuñu ko incident yu mel ne du fa jóge hmm. alors li gën yokk incident yi bokk na ci ab euh, euh, candidat à la présidentielle Ousmane Sonko di potentiel également adversaire euh, ci langue gi ñu xañ ko depuis ce matin mu génn këram ñu barricade aussi foo koñom yépp ba doomam sax mënut a xëy dem jàngi est-ce que yooyu itam du doon ay mbir yu nga xam ne day ñëw yokk ci xar mi karaw ci mbir yi bu tollee fii waaw li ñuy njëkk a def mooy ñaawlu loolu ndax hmm. koo xam ne yàlla def na nga bëgg jiite réew mi war nañ la may sa say say sañ-sañ mm-hmm. war nañ la jox say àq war nañ jox sa sa yelleef mm-hmm. waaye jaaduwul un citoyen sénégalais buy prétendre à la maïssage suprême mm-hmm. bu ko génn këram ñu bari barricade këram mel ni ñu nekk état de siège mais démocratie lañ nekk Sénégal lañ nekk ku nekk am nga droit gën a dem doxi say soxla ñëwaat donc loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax te loolu dafay jur fitna rek. ndax li ma li ma koy waxee saa su ne rek doole yàlla rek ko moom doole yàlla rek ko am moo noo jaay nit ñi doole ba mën leen not noot définitivement tôt ou loolu day jeex donc man li may wax Macky Sall ak son régime mooy nañ bàyyi nit ñi ak seen liberté. waaw nañ bàyyi nit ñi ak seen liberté de manifestation ñu bàyyi nit ñi ñu mën a exprimer wu librement te ñu bàyyi nit ñuy jàpp di tëj ku ñu ku kii gundu xatal nit ñi di leen dóor ak di leen vraiment loolu dafa rafetlu sax ci ci démocratie sénégalaise. démocratie sénégalaise d'accord daañu ko gën a yaatal ñu jox kàddu gi Fatou Abdou moom it mu tàbbi ci waxtaan. alors euh, situation bi mi ngi am. vingt 24 heures avant ñu dem ci procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko. Mm-hmm. est-ce que jàpp nga ne mën nañ ci xaar justice bu normal euh, ci contexte bu tendu bi nga xam ne am na aujourd'hui bon li ma mën a wax mooy man damay ñax àttekat yi ci ñu teg seen tànk ci dëgg teg seen tànk ci njub te ñu bañam topp Macky Sall ci maanaam Euh, plan bi mu lal parce que Macky problème moom mooy bëggul kenn ku ko sonal ci nguram bëggul kenn ku ko gundu xatal ci nguram dafa bëgg ñëpp rek ànd daal di maase te loolu nag amul fel donc li may maa ngi ñaax sama mbokku attekat yi ka ñu xam ne lu ñu atte fii man juge un musulman jullit laa lu ñu atte fii danañ ko attewaat fële donc ñu teg seen tànk ci jub ci dëgg procès bii nañ ko teg ci yoon. allez-y. damay ne procès bii procès en diffamation la. Mhm. pour saa woo demee tribunal chaque jour nga gis procès en diffamation. donc pour man c'est une affaire banaal donc faut pas ñuy jël ko bu ko def une affaire d'état nañ ko àtte comme ni ñuy àtte yeneen dossiers yi. da jàpp ne dañ ko def une affaire d'état. mën na nekk c'est y a c'est possible. c'est possible mën na hmm. nekk y a des moo tax ma ne man je parle au juge hmm. parle au juge nga xam ne ñoo yore dossier parce que liir naa xam nga dëgg la xam lu dëgg quelques petits incidents yu amoon ci audience bu lay passé donc man j'invite les juges à se hmm. ressaisir ñu ñu garder seen impartialité garder seen seen sérénité pour que ñu mën a juger affaire bi en toute tranquillité en toute sérénité ku am dëgg ñu jox la ku amul dëgg ñu xam ne. alors depuis tout euh, bu ñu waxee rek euh, yaa ngi wax Sall Macky Sall Macky Sall. Mm-hmm. ci ci justice boobu également souvent Sonko di wax ci justice bi. Mm-hmm. dañu far ak Macky ñenn ñi sax jàpp ne faale leen. ci li nga xam ne moom lay yëkkati ci ci ay kaddu en tant que acteur de la justice. Mm-hmm. est-ce que euh, jàpp nga ne aujourd'hui foofu la ñu war a yegg ci li nga xamante ne mooy justice bi souvent ni ñu koy nu ñu koy. gàkkale wala ni ko ni ñu ko gisee. non non man euh, yenn propos Ousmane Sonko yi à l'endroit de la justice man duma ko approuver parce que de toute façon justiciable comme justiciable yëpp comme ñëpp et que donc euh, justice dañ ko war a jox respect waaw et que procès duñ ko def duñ ko def à l'avance procès da ngay ñëw toog jàkkaalook àttekat yi ñu àtte la waaw su fekkee ne déjà yaa ngi suspecté ñi xam ne ñoo la war a àtte déjà balance bi euh, maanaam dëng na et donc man li ma koy conseiller mooy mu bàyyi di attaquer magistrats yi comme ça ouvertement waaw ça c'est un conseil que je lui na su amee procès am na ay avocam na préparer sa défense dem défendre génne tous les éléments yoo xam ne moo ko ñoo ko mën a blanchir dans cette affaire et dans d'autres affaires qui risquent de venir xam naa euh, prochainement waaw ah, mais attaques yi contre la contre les magistrats vraiment man c'est quelque chose que je désapprouve voilà. et pourtant et, cette question se pose souvent l'indépendance la liberté peut-être de de de la l'indépendance de la justice euh, euh, ñenn ñi jàpp ne la justice am na ci loo xam ne dafa appartenir au président de la République Macky Sall ndax yow gis-gis boobu nga gis nga am. walla c'est différent xam nga man euh, maanaam ab diir bi ma am ci justice li ma seetlu mooy que justice. maanaam indépendance bi ñu war a am amuñu ko des na waaw loolu nag euh, soo koy sooy sooy poser responsabilité euh, dina nekk benn côté ci àttekat yi mhm. benn côté ci nguur gi pouvoir exécutif waaw responsabilité àttekat yi mooy li ñu nangu ñoom di recevoir ay ay ay ndigal mhm. di jot ay ndigal yoo xam ne dëppawul ak yoon ñu di ko jëfe loolu yëpp pour maanaam neexal euh, ñi nekk ci nguur gi côté nguur gi également maanaam dañoo ndar képp justice noo xam ne ku fi jéem a euh, jaay l'indépendant prochain conseil ñu relever kon mën nañ jàpp ne justice bi lu ñu naan indépendance de la justice amul ci Euh, dëkk bu mel ni Sénégal. kon kon justice bi indépendante wul fii ci. ci am na ay juges yu indépendant. Mhm. mais justice bi de façon. mais justice globale. Mhm. amuñu seen indépendance. mais est-ce que est-ce que du contradictoire kon ci booy wax Ousmane Sonko bu mu attaqué magistrat yi en en tenant compte ci justice bu nga xam ne amul indépendance.